tey ñëw ak yéen rek ci kàdduy laabire diggante mbokkum jullit ak mbokki jullitam ak mbokkum taalibe ki mbokki taalibeem ci site bii di académie Minane Daaru minan ci mbir yi tawat ji nga xam ne lu mën a xew rek ñëpp mu képp ku ku gëm yàlla danga gëm ne dogalub yàlla la bu mu wàccee balu ñu ci ñëw nag coow la da coow coow yi daa bari lool coow yi bari na lool boobaay léegi waaye am na ko ci fés nag koo xam dafa mel ne dafa day coor sëriñ si niti diine yi mooy ki wax ne maanaa ci maanaa li mu bëgg a wax mooy sëriñ si bu ñu mënee dara nañ fi jële tawat ji nañ rey virus bi ne walla bu mu leen déggati muy ku réer nag waxi ku réer wax ju suufe waaye boroom moom la jëkk réere tabaaraka wa taala ndax bu xamoon sañ-sañub yàlla ak coobareem du waxe noonu nañ dellu ci yonent bi nga xam ne mooy ngeen ji mbindeef sallallahu alayhi wa sunu boroom tànn ko yónni ko waaye mu gënal ko ci mbindeef yi yonent boobu am na am nay jamono benn yahud bu ñuy wax Labiid ibnul Asam njabar ko ba njabar ga jàpp ba ñépp xam ne jàpp na wax nañu ne juróom benn weer yonent bi am na ko ci biir njabar googu jabar gi jàpp ba sunu boroom soog ko wax yu mm, daal di koy saafaral loolu ginnaaw yonent bi lay teg loolu te mu gënal ko ci bindeef yi uh, kon kon koneen mu tawax te bu bu bu bu bu ñaanoon yonent bi ak ñaanam ku ne xam na ne boo dee ñaan ko nangu rek moo gën a mën a nangoog ñaan ñëpp waaye gannaaw yonent bi saxaaba yi nga xam ne ñoo gën ci jullit ñi gannaaw yonent bi am na mbas mu xaw a mel nii mu daloon dañuy wax mbas dañuy wax paonu imwaas jamono yi atum 18 ci gàddaay gi du sori du sori 640 ci ati tubaab yi juddu yonante yàlla Isa alayhi salaam ca la amoon ci jamonoy xilaaf ak sayyiduna Omar ca Cham la woon lu bari ci jullit faatu ci am na ñu wax ne ñaar fukki junneeg juróom 25000 ci jullit faatu nañ ci am ñu ne fanweeri junni am ne fanweeri junni faatu nañ ci waaye ca saxaaba yi am na ñu ci ràññe ko ñu ci faatu bokk na ca Muaad ibnu Jabal waaye bokk na ca sayidna Abu Ubayda ibnul Jaraax nga xam ne moom lañu tuddee woon aminu hadihi l umma di ngir darajaam ju kawe waaye di koo xam ne itam bokk na ci al asharatul mubashara yonent bi dafa tànnoon fukk ci saxaaba yi ci ña jëkk a jébbalu ña jëkk a dugg ci lislaam ne ñoom seen garanté na seen aljanna Abu Ubayda ca la bokk bokk ci ñi jëkk a ci lislaam ca mbas moomu la faatoo defe naa kuy nangug ñaan xanaa saxaaba yi ñoo loo gën a mën a nangug ñaan kon réere boroomam rek moo tax mu waxee noonu waaye coobare yàlla waaye ña xam yàlla jege ko am na ñoo xam ne dogaloob yàlla sax duñ ko nangoo fànq buñ xamee ne mi ngi ñëw mu wóor leen bu ñaanee mu deltu gannaaw sax duñ duñ ñaan ngir ngir nango dogaloob yàlla ak coobareem ci misaal sëñ tubaab bi muy nekk gànnaar ca la taalifi qasida wa kaana xaqan naa nasrul muminin dafa am bayit wum ca waxoon ne wa najjina min shiddatin wa batshi wa fitanin tahdusu inda tatshi muy ñaan boromam fitne ya nga xam ne buñ demee ba jamonoy tatsh 1409 mooy tolloog 1989 ji ji événement naar yi niñ koy waxee muy ñaan sunu borom ne ko buñ ca àggee fitne yay xew nag ñu ca nag ñu ca musal nag nag ñu nag ñu ca mm, sottil maanaam ndoxum jàmm waaye bi mu ñëwee senegal dafa dindi bayit wa daat koy daat fay wuutal wajjih li man qad amanu wa aslamu wa ahsanu muxjila man lam yuslimu ñi xam sëriñ bi nag am lu ñu xam ci moom gis ni li tax mu dindi bayit wa dafa gis ne waa Sénégal nañuy bàyyee xel ñaan googu ak bayit woowu xëy na naar yi duñ ko nu bàyyee xel moo tax bi mu ñëwee mu dindi ko ngir bañ ñi fi nekk tey tey nit ñu yàlla nangu seenu ñaan buñ gisee bayit yi ñaan yàlla fekk balaa boobu fitna jooju te fekk sunu borom dogal na ko ba noppi kon nangu dogal bu yàlla nit yàlla yi foofu foofu la ñu nekk am na ci magi sëriñ Bachiru yi mag ñi ko toppoon koo xam ne nee na ma accident bi mu defoon moom sëñ Bachiru nee na am na génn na ci këram ay yoon waaj a dugg ci oto bi dëppaat baagante ay yoon ba mujj mu ne dogalub yàlla daal dawee ko nii ñaaw na daal dugg ci oto bi ci la defee accident boobu nga xam ne sunu borom da ko ca musal kon foofu la nit yàlla yi nekk coobara yàlla itam ñu war koy bàyyi xel daana ci nettali benn xisa Cheikh Abdul Qadir nii ci nit yàlla yi gën a mag la bokkoon yi gën a mag am na dañuy nettali na am na am na am na am na taalibeem bu mos a ñëw ci moom ne ko dama bëgg nga ñaanal ma doom ju góor mu ne ko sa soxna kii muy am ji góor lay doon ba juddoo kooko juddu di jigéen mu si ci moom mu ne ko yàlla xam na ne ba ma naan la góor lay doon maa ngi jàpp ci nàngam moom maanaam tudd ko li nga xam ne mooy xàjjale diggante góor ak jigéen ne ko maa ngi ci jàpp bi ba naan la góor lay doon ne ko sunu borom rek moo bëgg moo bëgg maanaam wan ko yàlla rek moo bëgg a wane coobareem waaye amoon naa ci yaqin te Cheikh ji Khadre Jilani ku ne xam na ne fa àggoon ci nit yàlla yi sëñ Touba tudd na ko lu bari kon loolu mooy coobare yàlla moo tax sëñ Touba wax ca xasida ga ne fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha alladi tadabbara ay saw saw la ay jëfam di àndal yoo xam ne kenn mënu caa xam dara mun na sëñ Ka di kàttan gu ànd ak coobareem ca lay jëf loo xajj xajji buur bi laq yëf kon kooku ku réere boroomam la kiy wax wax jooju boo ko defee nag ñu tënk ci mbiri tawat ji xew di mbas mi di korona coronavirus ñëpp di ko waxtaanee mbas mi damay gis na ñett yi la génnul ñett yi benn ñaar yi dañ koo séddu ñu nag ñi gëmul yàlla yéefar yi bi ci des nag ñu bokk kook ñoom muy mbugal la di natt mbugal la ci ñoom ndax sunu boroom dafa waxoon ne dafa dafa tuddoon ay ay ni nga xam ne dañ ko daa weddi duñ jëfe ndigalam duy bàyyi tere mu yéefar yi wane nu mu jëflanteeg ñoom ci mbugal daf na fa minhum man arsalna alayhi xaasiban wa minhum man axadathu sayxa wa minhum man xasafna bihi l arda wa minhum man agraqna am na ñoo xam ne ngelaw lu ngiraw lu métte métti lay sotti lay laa leen di sànni mu faagargal leen am na ñoo xam ne malaakaay xaaju seen yax yi seen yax yi ja seen yax yi toj euh, maanaam seen yax yi funux ni sëñ Moussa Ka wax mas malaaka xaacu leen fonax te yax ya mu ne am na ñoo xam ne itam dama leen di dugal ci biir suuf am ñoo xam dama leen a labal mu ne yéefar yi noonu la mbugal yooyu laa leen daa teg waaye dafa am fu ko tudd ci alquran teg ce wa ma hiya min alzalimina bi baid ne yar ba wu ma leen daa dumaa nag yar ba soriwut kon loolu itam lii mën nay ab yar ci ñoom yéefar yi waaye bu dee ci jullit ñi balaa la fitna la fitna sunu borom di teg di ñu nattu waxoon na ko ci alquran walaqad fatanna alladina min qalihim min qablihim fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkadibin natt woo naa ñi leen jiitu ngir xol ba xam wax nañu dëgg yii nit danaa leen nattoo nattoonoo ngir xam ñi wax dëgg ak ñi ñi ñi ñi ñi ngëm dëgg nekkul ci ñoom dafe naa tawat ji feeñal na loolu am na ñoo xam ne nee nañ ay jullit ñi waaye ku ay jullit lañu waaye ku ne xam na ne saalit nañu ci tawat ji loolu nag kon ab nattu la ci jullit ñi waaye bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk nag muy ab jaaj la war doon ci ñoom war doon ci ñun ñëpp ñu ñu dëpp nag deltu gannaaw sunu borom wax na ko ci alquran awalaa yarawna annahum na fi kulli aamin mu aw marratayni thumma la yatubuuna wala hum yaddakkaruun nee na xanaa du ngeen seetlu ne at mu ne danaa leen nattu fitna leen ñaari yoon wala wala benn yoon wala ñaari yoon ci at mi te du ngeen dëpp mukk kon ab jaaj la war a doon yéefar yi dëpp dellu ci yoonu yàlla jullit ñi nga xam ne li yàllay diglee defuñu ko nañ boo nam waree lim tere bàyyi wuñ ko nam waree ñoom itam ñu dëpp alquran lépp ngi ci biir yonent bi dafa waxoon ne fiihi naba'u ma qablakum wa xabaru ma baadakum wa xukmu ma baynakum xabaaru ñi leen jiitu mi ngi ci xibaaru ñii ñëw mi ngi ci lii ngeen toll mi ngi ci kon lépp mi ngi ci alquran kon lan mooy lan mooy solution bi solution bi mooy dellu ci yàlla ñun ñëpp nañu dellu ci yàlla xam ne li wér mooy yàlla ko indi donte am na ñuy ñuy wax naan tubaab yee ko ñoo ko fexeek seeni fexeel ak nangam lu mu mën a doon rek bu ci yàlla àndutoon munta am sunu borom ba mu tuddee njabar ci alquran dafa ne wa maa hum bi darrina bi min ahadin illa bi idnillah mu kenn mënu cee lor kenn ci lu dul lu dul coobare yàlla kon bu ko tubaab yi fabriqué it bu neexutoon yàlla du tasaaroo ni mu tasaaroo di lor nit ñi kon lu mën a xew ci yàlla la jógee kon nag dellu ci yàlla xam ne yàlla ko tege moo ko mën a dindi te di ko ñaan ndax ñaan mooy nga ngànnaayul jullit ndax ñi toll ci ñaan moom nga xam ne seen maqaam xoola toll dañuy ñaan seen borom mu mu tegi ko ba ca topp nag mooy muñ muñ ngir yàlla ab jullit lu ko dal day muñ muñ ci maqaama yi gën a kawe la bokk kon nañ dellu ci yàlla di ko ñaan mu teggi ko fitna ju ci mën a tegeeg nattu yi ñu ñu di ko muñ waaye ba ca topp nag fegu nag li li li ñu santaana ci fegu lépp lu ñu la mooy tax mucc ci tawat ji te te du lu yàlla tere nga def ko lépp loo xam ne dana ci tax mucc daal te lislaam nangu ko nanga ko def bu dee lu jar bàyyi nanga ko bàyyi loolu loolu defe naa moom la sëriñ Muntaqa digle maanaam laa bii rek docteur yi ñun ñëpp nañ ci tënku te xam ne nag su nu borom moo ko santaane ni ma ko waxee léegi alquran daf ne qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana wa mawlana wa ala allahi fala fali tawakkali almuminuun dara ta dal ci suñ kaw ci lu dul lu yàlla lu yàlla dogaloon kon itam nañ nañ bàyyi xel loolu xam ne dellu ci yàlla ak ñaan ko dong moo ko fi mën a jëlee waaye di ko tuddee ab guerre dañuy geer ak dañuy xeex xëy na tuur yi nu kaw la waaye ëpp naa gëm ëpp naa gëm ne koo war a xeexal la wala koo war a geeral la dogalu bu yàlla kenn du jàmmarloog moom sunu boroom ndamu la gën a bañ defe ne lii man nga koo dindil sa bopp gis nga xare Badar dafa dimbale woon ñi jullit ñi ñu nekk ñetti téeméer yéefar yi nekk junni xaw leen a ñattite mu dimbali leen ak seen lim bu néew boobu ñu gañ yéefar yi waaye am na beneen xare bu ñu wax xonay na boobu yi jullit ñi dañoo tàmbalee bari may ay mat ay téeméeri junni bañ bañ gisee seen bopp gis ne wana ne tey de duñ ñu duñ ñu not mukk ngiruk ngiruk néew sunu borom damu boobu sunu borom nattu leen ca ba fit ba xare ba mett ci ñoom ba am ñu ñu wane gannaaw daw moom la alxuraan di wax waaye yow ma xonaynin id falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat suma wallaytum mudbirin wan leen ne mënul leen seen bopp dara bañ xam ko mosoog leen a dimbali kon ab jullit day wan a yàlla day wan yàlla ak lottam te mooy la hawla wala quwwata illa billah pexe ak kattan kenn mënu ko am ci lu doon dimbalul yàlla kon na xam ne tawat ji yàlla rek moo ko mën moo ko mën a moo ko mën a dindi wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu loolu alquran la boo ko defee itam fi may tëjee mooy mbir jàkka yi ak jumaa yi ci xew nañ ci doyloo rek gis-gisu sëriñ bi ak ndigalam sëriñ Muntaqa sëriñ Muntaqa kaanaa ku ko xamul ku ko xam dana xam ne ñett moom mi ngi ci moom ba mu mat sëkk xam-xam bi mat na sëkk xel mi mat na sëkk basira bi soo ko muy baatin bi kilifa gu àggul foofu sax ku am war kilifa gu àgg fii sëriñ Muntaqa àgg kon mbir mu ne rek gis-gis bu mu ca am rek ba ba joxe ca ndigal na ñëpp tënku ca loolu xam ne mooy moo moom loolu rek fa la ca la sag ba nekk ca la ndam la nekk noo ngi ñaan ci barke moom fi nekkal sëñ Tuubaa da ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa sunu borom teggil teggi nattu bi ak fitna ji mbas mi ci àdduna wu bépp soo wisaare fi yërmandeem di ñaane bayit wa sëñ Tuubaa ñaane woon ca xasida ga yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia alwara irham jamia alwara irham jamii al wara ya hadiya radaa noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa site bi sëñ Muntaqa Njaay sëñ Cheikhuna ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu soo leen bëggee abonné si chaîne bu mag bi di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane dër nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati si actualité si communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane